tactique, moi je dis la clé du match, c'était la défense. On avait une bonne organisation défensive, on, avait bien, on a bien utilisé la ville de Dakar. Donc il fallait avoir une bonne organisation défensive, les empêcher de jouer. C'est ce qu'on a fait pour pouvoir euh, arriver à bout de la ville de Dakar. au de l'aspect technique, il y a aussi notre travail qui consiste en travail psychologique. Comment vous savez, nous on a une équipe jeune qui joue sans pression. Hein. sans pression. Tu connaissais le basket club, c'est que nous, on basket euh, freedom. Maintenant, ce, ce qui a fait la différence, c'est tout juste que les filles en voulaient plus que les autres et les autres à la différence. D'accord. Vous avez bien préparé votre équipe pour en arriver à, ce niveau de compétition. Maintenant, qui regarde portez-vous aujourd'hui sur l'adversaire sincèrement, je dis, elle fait partie des meilleures du Sénégal, qu'on ou non. Le match d'aujourd'hui, la de Dakar a joué de sa valeur, qu'on ou non. Moi, je ne reconnaissais pas Elle a joué en de sa valeur. on a exploité les failles. Jupiter, votre ami et frère Moustapha Gaye a évoqué, en pour expliquer cette défaite, la présence de quatre de ses joueuses en U25

et celles qui habitent Louga. Il ne restait que les filles de Saint-Louis, on avait pris des vacances. Même moi qui, vous, parle, je pas au terrain. On a repris les entraînements lundi. C'est lundi qu'on a repris les entraînements pour préparer la Ça finale. Ça veut dire que vous avez eu on a eu le même problème. Bon. Bon. net du moins te dañ doon joué ci U25 yi dañ demoon francophonie suñu kit malien bi ñibbi suñu xale bi dëkk Mbour ñibbi suñu xale bi dëkk Louga ñibbi donc man mii entraîneur bi sax ñun jëloon nañu vacance parce que xale ñoo ngi doon toppatoo seen soixante-douze heures centre de basket bi donc jëloon nañu vacance c'est lundi qu'on a repris les entraînements ñun ñëpp donc mën nañu wax ni ñun ñoo yem même cas. waaw damay commencer d'abord par gërëm. Euh, président Ligue bu Thiès bi ñoom la organisé gis euh, rafet na et tey rek lañ ko mos a def chaque fois bu ñu leen soxlaa bu ñu ñëwee dañu organisé euh, félicité aussi comité local d' organisation bi ak les membres de la fédération félicité équipe bu Saint-Louis bi encouragé ville de Dakar pour dire également dire que li ñu doon xalaat li ñu doon ñaan am na final bi joué nañ ko si jàmm le meilleur a gagné suba amaan na beneen finance yu góor ñi fédération li mu wax mooy état daf ko dénk benn mission te mission bu état dénk ko dina ko def ba mu jeex tàkk donc loolu daal moo taxoon ñu ne bi ñu defee réunion nañ xool nan lañ mën a trouver solution pour jouer finale yi mais aussi dërël di nekk décision unilatérale dañoo woo équipe yi ñu ñëw ville de Dakar douane DIC ak Saint-Louis ñu waxtaan bu si biir réunion bi ñu jàpp ay date ñu ne d'accord nañ ci lii toutes les équipes étaient représentées ñu dem valider ko en réunion de bureau fédéral donc moo tax dégguloon benn équipe casse naan lii ak léeg donc le meilleur a gagné félicitations.